teg ko ci loxoom ngir jàppale ko réew mi ci xew-xew bi ci senegal yëpp bi bi moo ko waxee itam ma jokkoo ci ak moom mu rafetlu ko sant ci waxit mm, ministère de la sant bi nga xam ne ñoo yor la ñu teg ko ci seen loxoom ngir mu jëm ci askan wi loolu nag bu ngeen gisee sëriñ bi def ko ñu war koo leeral dafa jox ndigal taalibe Sëriñ Tuubaa yëpp.